taxaw ci kanamu àttekat bi euh, bu deuxième cabinet ñaar fukki fan ak euh, ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal ngir ñu déglu ko ci mbir mi nga xam ni euh, moom lañu koy toppee ñeen lu jëm maaso ci outrage à magistrat li nga xam ni moo di diffusion de fausse nouvelle. waaw ngi wax ni dafa wax loo xam dëgguwul ci li mu ci ay ay ay yu demandé woon ñu nasaxal dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. Euh, yoon dina ci def liggéey mais ñun mhm. en tant que taskatu xibaar li ñuy demandé woon démb la ñuy demandé waat tey bu fekkee wàllu diffamation la ak yu xeetoog yooyu euh, te amuñ ci benn méthode bu dul tëj nit ki kaso wala contrôle judiciaire euh, loolu moo war a takk ndeysaan maa ngi gis mhm. démb réaction Racine Talla directeur général bu RTS mu ni rapport Reporters sans frontières ci ni Sénégal dafa la dellu gannaaw loolu du dëgg liberté d'expression dafa gën yaatu Sénégal man ko Grand Tine puis un journaliste dafa fàtte ne moom du journaliste politicien la dafa fàtte ne du journaliste moom directeur boîte bu ngandale boo xam ni boo ko jiitee da ngay belli boo ko jiitee da ngay nanti moom booletuñu ko ci reporter yi ñuy jàmbat di wax journaliste am ay problème ak ñi ñuy jàpp ak ñi ni ci kaso yi ak ñi ñuy takkale ñi nga xam ne du weesu ñu takkaleen bracelet ak ñi mënta tukki moom bokk ci moom nekkatul journaliste li dal Babacar Touré li dal Pape Ndiaye euh, grand grand Mademba euh, nu mu tudd Biraye Mademba Ndiaye nee mm-hmm. na un journaliste ne doit pas respecter la loi mm-hmm. loi da koy tënk nag s'il respecte la loi mm-hmm. du def liggéeyam bu fekkee da ngeen bëgg di liggéey te respecte loi doo leen liggéey xam nga loi bi mooy lan nga joxe information boo xamante ni bii da ngay garder sa source léegi boo demee ci kanamu tribunal au lieu ñu xool ba xam li nga wax dëgg la wala du dëgg dañ laa nekk indi sa source bu indi sa document ñu ne la resel le document administratif dans ce cas taskatu xibaar mënta mucc foog ñu topp la ci deformation wala ñu topp la ci fausse nouvelle wala resel document administratif wala injure publique dans ce cas taskatu xibaar dootul liggéey ñun kaddu yu mel ni grand Mademba Ndiaye la ñuy déglu mais du kaddu yu mel ni Racine Talla nekkatul journaliste directeur RTS nag ubbi rajo bi campagne Macky Sall ci banlieue bu Ndakaar kon parce que nekkatul sur le terrain Sénégal dafa dellu gannaaw dëggantaan ci liberté bi taskatu xibaar war am pour def liggéeyam ci na mu jàpp jàpp sàcc mhm, vite fait Ibrahim Pape Ndiaye ñaar fukki fan ak ñett ci ci weeru mel la ko war a taxaw ci kanamu àttekat bi man li may wax rek mooy mhm. euh, mu bi mhm. c'est un citoyen injusticiable comme man comme ñi toog nii ci plateau bi bu demee défendre boppam ci lañ ko tuumaan euh, te moi je le répète je reste convaincu d'une chose j'ai confiance en la justice sénégalaise léegi nag ma koy répété di ko répété am na ci justice waxitam ci corporation mhm. mhm. mhm. euh, euh, forum mondial bu économie euh, sociale ak itam solidaire mu nekk juróom-benneel bi démb nag lañu ko daal di ubbi fii ci diwaanu Ndakaaru njiitu réew mi nag bokk na ci ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite ndaje boobu ñu gis si nag ay image yoo xam ni wër na lool Euh, moom Macky Sall mu nekk ci ak ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci kujje gi ku ci mel ni Barthélémy Diaz ak euh, Khalifa Babacar Sall Soham El Wardini